ngir moytu accident yu bari yu am ci géej gi waaye gaal yi nga xamante ni ay bant lañ koy yettee loolu waral ñu woo nappkat yi nekk ci commune bu Joal ñu daal di modernise seen yooyee gaal jël ci li nga xam ne mooy pirogue en fibre de verre di ko jëfandikoo muy seen kaaraange. fépp boo xam ne région maritime am na géej rek di fa dem waxtaan ak acteurs yi CLPA yi euh, weccante ñoom xalaat ba ñu xam ne ñoom état Sénégal. dafa jël en charge euh, seen préoccupation accompagner leen ba nga xam ne ñu bàyyi euh, gaalu bant yi dem ci gaalu fibre en verre euh, lu ko lu ko wund nag loolu dafa bëri mooy avantage yoo bëri premier avantage mooy le côté environnemental donc ñu ne li en même temps aussi gaalu fibre en moo gën a moo gën a léger moo gën a gaaw moo mooy consommer moins de d'essence donc ce qui fait donc day yokk rentabilité Euh, ki koy ki koy ki bi. jën yi nga xamante ni jafe na loolu jamono ji nekk na luy gën a gàllankoor liggéeyu nappkat yi nekk fii ci commune bu Joal ci biir loolu nag ñu leen di woo ngir ñu bàyyandiku jën yu ndaw yi nga xamante ni dañ koy faral di napp ba mu daal di màgg. ñun acteurs yi parce dama cee bokk ñun acteurs yi ñoo war a am taxawaay boo xam ne comme li ñu bon père de famille mooy lu ngay nappee. dafa am yoo xam ne baaxul ci euh, si jën yi waroo ko jël mooy mën a filaments yi ak lu ñu naan les filets de la pêche les filets dormants yi nga xam ne dañ koy bàyyi noonu teg ko foofu du bàyyi bàyyiwul jën bu ndaw bàyyiwul jën bu mag lépp lay jël rek buub day jëlaale sax lu ñu naan lu ñu naan sax les les algues ak yëpp yi nga xam ne euh, les matières végétales yëpp lay jëlaale te loolu baaxul ci baaxul ci baaxul ci géej gi. société bi di sirne nag di woo nappkat yi ngir ñu gën a moderniser seen wàllum gaal yi nga xamante ni ñu ngi koy liggéeyee ngi di leen gën a sàmm seen kaaraange ci biir géej gi waaye tamit di bàyyi xel bu baax a baax màggaayu jën yi nga xamante ni day am ci biir géej gi.